asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi tey nag ñun waa Sisso Habbatu Sauda dañoo am benn ay question yoo xam da ngeen ñu ko doon faral di poser ñu ñëw fii nag pour waxtaan ci ak yéen mooy lan affaire jin affaire shayatin ñu xam ne nag yàlla dafa sàkk nit sàkk jin te dëkkuwaay boobu noonu dafay faral toujours di am ay problème ndax nag des fois nag nit doomu aadama di am problème ci wàllum sëyam wala si wàllum liggéeyam wala sax ci wàllum dundam rek en général que ça soit ngay ut dara mu dëgër wala nga nekk ci dara moom ay yàq-yàq ay gàllankoor loolu nag lu ci gën a bëri ay shayatin da ci lëmasu wala ki nga xam dafa am àndandoo wala mu am rab ñenn ñenn ñi naan ko ay dëkkandoo loolu yëpp mu nekk li nga xam ne dafay faral di sonal doomu aadama yi Sissoko Habbatu Sauda nag ci wàllum boobu la ñëw ngeen xamee ko lan ci médecine prophétique yi nga xam ne macha allah def ci def ay preuve am def ci ay jàngatam ci loolu. ma ne leen dama leen di indil ñaari produit yu am solo yi nga xam ne macha allah yi yiñ fi tudd yëpp incha allah boo ko utiliser dina la ci jàppale mooy lan jujube ak harman bu siiso xabat soda ñaari produit yooyu muy produit yi nga xam ne dafa soxol doomu aadama yi ñaari produit yooyu muy produit yi nga xam ne dafa soxal doomu aadama yi ndax dina leen jàppale incha allah boo ko jëlee di ko sangoo lépp li nga xam ne mooy def-def que ça soit liggéey que ça soit shayatin bu nekk sa biir di ànd ak yow di daw ak yow que ça soit li lay yàkkal que ça sax tëju que ça soit tam ki nga xam ne dafay làmb dara bu dëgër sa bërëb liggéey kaa comme niñ ko waxee nga nekk ak sa soxna toujours ngeen di am problème mënoo leen déggoo te mu leer na ni am na ay def-def yu nekk ci biir nga nekk ak tam ki nga xam ne mooy sa borom kër toujours doo leen déggoo ñaar ak ñett ngeen di xuloo di histoire kër googu incha allah boo leen ko utiliser que ça soit jigéen ki wala ku góor ki loolu yëpp di ngeen gis ne dafay deñ sa yaram dina set cat lépp li nga xam ne baaxul incha allah boo utiliser Harman ak jus bu si soo xabar soda dina la ci jàppale yow mi nga xam ne tam da ngay tëdd di gént wala sa bopp di faral di metti wala ngay am ay yëg-yëg ngay jékki di merte doo comprendre lu la ko def lu bëri bëri ay tolof yu bëri bëri yi nga xam ne mu ngi si biir àdduna bi di la dal doo comprendre incha allah utiliser Harman ak jus bu si soo xabar soda ñun ñoo la ko wax de incha allah boo ko utiliser loolu yëpp dina la ci jàppale sa yaram oyof tooy gis nag ay bunt yu bari yuy ubbeeku si kàttanu yàlla ak si soo xabat sooda doomu aadama yi moo ko tax a jug yéen yéen a ko soxal donc mbokk yi ñu ngi leen di woo ngeen ñëw incha allah seen faaj aajo dina faju ci si soo xabat sooda ndax nag yéen a ko tax a jug médecine prophétique bi nga xam ne macha allah da koy def mu sell mu teg ko ci ay base toppul kenn ku du Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc kooku lu muy def dafa set dafa wóor ndax nag defe naa ba mu fi nekkee ba tey jaratul dem ci ay sëriñ jaratul dem fenn ñu naa la defal li wala defal la c'est très simple lu muy joxe dafa wóor dafa set dafa sell comme ni ma leen ko waxee alxuraan rek la topp jël leen ñaar yooyu mais utiliser ko gànnaa yoo ko même bu la dara dalul dafa baax parce que da ngay gis ne carrément boo ko utiliser da ngay oyof ak jujube ay xaar man bu Cissokho xabat soda mën nga ko am fépp doxantul ndànk rek ñëw ci Cissokho Habbatu Sauda partout dans le monde sa aajo faju incha allah nga bég sa famille bég nga nekk ci jàmm ak si soo xabar sawda SHS mbokk yi bu leen kenn ndax ndax mooy marque bu baax bi marque leader bi voilà essayez et juge